la Yes, أزر أموري كسر ميوري بلا جداري يا من أجاب من استجاب هبلي جابا في زمن داري يا ذا الجمال yaa dal jalali yaa xayra wahli safiluhayi yaa dal wudi yaa dal wujudi kulli bi judi bilal Amen. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi yéen ñi seetaan Tanim TV tey Tanim TV mu ngi fii ci dakaaru Ndiaye ci dëkk bu mag bi nga xam ne mooy capitalu Sénégal ñu ñëw fi nag tey tolloog àllarba le 22 novembre ngir waajal bis bu tedd bu mag bi nga xam ne moom la ñuy amal fii ci CICES te Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Khadim aw Ba di ko amal mbokk yi tey maa ngi leen bëgg wan mi nga xam ne mooy wàccaay yi nga xam ne li dox suñu digganteeg bis bi ñetti fan la wala ñaari fan ngir ñu àgg ci bis bi te gis ngeen ni mu tàmbalee mel. mbokk yëpp ngi ñëw yaakaar naa ne ñi nga xam ne ñooy installé bâche bi tamit ñi ngi fi maa ngi leen koy laaj léegi ñu ne ma baas bi yaakaar naa ne lu mu néew néew guddee na euh, li nga xam ne moo di soixante-dix mètres yaatoo lu mat trente mètres li fi war a dugg ci nit moom lu mu néew néew xam naa ne war naa mat nangami junniy nit yoo xamante ni ñooy nekk fii euh, ñu ànd ak Tanime TV nag fas yéene lépp loo xamante ni bàyyikoo na fii nga xam ne moo di CCS ci journée Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bi doon 16e édition ren nag ñu tuddee ko sëriñ Seex Coro ak sëriñ Balla Coro mu doon loo xamante ni lu am am solo la sëriñ Bass Xaadim aw ba di ko def yaakaar naa ne ginnaaw li ma ko waxee woon bu màggalu Tuuba pa wooyee gàmmu wooy événement bu tolaat nii amut fi ci Sénégal événement diine bu tolaat nii amu fi boo xamante ni liñ ciy financé ci xaalis liñ fiy def li fi nit ñëpp di dajale ci ay tariixa ay turxu ay mboolem ay autorité liñ fiy daje yaakaar naa ne amaatul ci benn événement li ko waral nag du dara waaye lu dul ki koy organiser ak ki koy defal jikkooy ki koy organiser ak mbaax ki nga xam ne moom lañ koy defal muy Cheikh Mamadou Lamine moo fi dajale nit ñi loola nag moo tax képp koo xamante nii dangaa bokk fu baax li nga war a xintewoo mooy jikko ju rafet jikko ju rafet moo tax suñ bas man fee dajale mbooloo mu toll nii mbooloo moo xamante ni ciy góor ak i jigéen ñenn ñi di ay kilifaam ñi ci des muy seeni kilifa kilifay àdduna yi kenn du des daanaka tarixa yi kenn du des àdduna bi ñoom ñëpp koo bëgg a gis rek bu samdee képp koo xamante ni jàpp nga ko soxla woon ko lu yàgg mënoo koo gis boo ñëwee ci bis bi di nga ko gis moo tax mbokk yi nag na ngeen kal jàpp Tanime TV incha allah lépp lu fi xew dana leen ko wan ñu ànd ak sunu caméraman muy Seydina mbokk yi bu kenn échappé ci Tanime yi dara du leen ci raw fii ak bis ba incha ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal sëriñ Basiiru Xaadim aw ba yàlla yàlla fiq aw fanam te guddal ko te wéral ko